yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi. bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala aalihi wa saxbihi wa xadimihi wa wala asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen nuyoo fii ci. jumaay Tuubaa ju tedd ji di leen ziyaare itam ci weeru koor wu tedd wi ñu nekk di am mbégte nag ci dalal sunu gan yu tedd yi di waa Al Wafa bu Daarul Muxti ci njiital sëriñ Modou Mbacke moom sëriñ Bassirou Anta Niang xalifa Cheikh Ibrahim mu ànd bokkam yu baax yi teew tey jii ci jumaay Tuubaa ji ci liggéey bi nga xam ne at mu ne ñoom ñoo koy ànd ñu di ko def doxalin wu rafet fa Daarul Muxti at mu jot ñu nit danañu dem siyaara ji leen ca liggéey boobee taasu ci barkeb xewal yi nga xam ne ñu ngi koy jëf foofee te di koy liggéeyal borom Daaru Muxti mi nga xam ne ñun ñëpp dégg nañ ci lam ñu Cheikh Mouhamadul Mountakha moo xam ne mooy jawriñu yoonu murit te loolu ñëpp seere nañ ko ndax euh, Serigne Touba radiyallahu anhu noonu la doxee woon ak moom loolu moo tax lépp lu fay def dañuy jàpp ne mm, ñoo ñun ñii lañ koy defal waaye ñun it lépp lu ñuy def fii ñoom it dañuy jàpp ne ñoom ñii lañ koy defal loolu moo tax liggéey bi dafa duggante day am ñuy jógee fii dem def foofu ay waxtaan di am ñuy jógee foofa di ñëw di def fii ay waxtaan loolu nag dafa nekk mandarga mu rafet ci euh, diggante Touba ak Daarul Muxti ni mu demee muy doon jenn jëmm ju am ñaari tur jenn jëmm ju am ñaari tur rek la kon ñu ne fii ñooy ñu ne fee ñu ne fee it ñooy ñu nekk fii rek la ñuy jëf foofa moom la ñuy jëf fii li ñuy jëf fii moom la ñuy jëf foofa kañ koy jëfal foofa moom lañ koy jëfal fii kiñ koy jëfal fii moom lañ koy jëfal foofa kon dafa mel ne lépp benn lay doon waaye ñoom ñi nag ñu doon nit ñoo xam ne ñu ko raf ñu rafetal nañ ko rafetalin woo xam ne rafetalin mënu ko féete kaw ci lépp lu mu mën a doon waxtu wu ne muy koor muy lu dul koor fu ñu leen soxlaa rek buñ geesoo gis leen ci suñu wet ak lu mu mën a doon léeg-léeg ci yitte yu mu mën a doon itam buñ leen ci soxlaa rek buñ leen geesoo gis leen ci suñu wet kon sëñ Modou ñu ngi leen di jotli ay cant di leen jotli ay ngërëm di leen jaajëfal it ci liggéey bu sell bi nga xam ne liggéey ngeen ko foofee ba yàlla dogal yéen ngeen wàcc euh, tey jii wala démb ñu fas yéene noonu incha allah gungeel leen ko tey suba euh, walla bu weeru fee ñu tey suba ak ginnaaw suba waaye nag lépp lan la rek yéen ñi wàcc tey ak nu ñi wàcc gi suba ak ñun ñëpp ñëpp jàpp nañu benn benn benn benn bi benn bi la rek. kon nag ñu ngi leen di sant ci jëf ju rafet yooyu nga xam ne jëf ngeen ko foofee ak taxawaay am solo yi nga xam ne a ngi koy taxaw ak wàllu yeete ak wàllu dimbale nit ñi ci seen diine ak seen taalibe di leen ci gërëm bu baax di leen masawu ci coono yi nga xam ne coono yi ngeen di door a jógee xam nañ ko xam nañ li ngeen jànkonteel ci ay coono lépp waaye teewul nag ngeen jog yëkkat seen sol seen dal ñëwaat ba fii àndaat ak ñun gungewaat ñu ci dem ci li des nga xam ne ñu ngi koy continuer ñun kaddu ci loolu nag laa lay lee kaddu ci kàdduk daayirat Muxaddamatul Xidma gépp suñuy cant ak suñuy ngërëm di rafetlu bu baax a baax a baax a baax di sant Serigne Ahmadou mi ne moo fi jóge léegi te doon def waxtaan mu bokk ci liggéey boobee bokkaat it ci liggéey bi ni nga xam ne yow mii sa jëmm ji ni nga bokkee ci liggéey boobee bokkee ko ci liggéey bi ak mboolem ñi nga bu baax baax a baax di yóbbante nag suñuy cant ak suñuy siyaar ak sunuy ñaan ci suñu kilifa gu tedd gi nga xam ne fa ngeen bàyyi ko fi moom di leen jot lii tam cant ak ay ngërëm ak ñaani Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne moom ngeen fekk si fii tey di ñaan ñu teewaat fi ay at yu bari ci bak Cheikhul Khadim wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin saydina wa mawlana muhammadin il makin wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwan yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen siyaare ci barab bu tedd bu màgg bi fii ci jumaa ju màgg ji ci mbokk yu baax yu tedd yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ndokkeel ci weer wu tedd wu mag wi nga xam ne ñoo ngi ci mujj gi di ñaan yàlla sunu borom li mu ci diggee ci njëlbeen gi ci digg bi ba ci mujj gi mu di njëggal ak gore sawara lépp yàlla ñu ko yàlla sunu borom defal ci barke sëriñ Touba euh, sëriñ Abdou ñu ngi leen di delloo nuyoo ak siyaare ci mbokk yi nga xam ne ñoo jógee Daarul Muuti ci Muassasatul Wafa ni ngeen ko waxee rek liggéey bi benn la daarul muxti bànqaas la ci Touba loolu moo waral waaye kon bu doonutoon loolu ñun ñëpp dañuy maase ñëw fii ci yéen ànd ak yéen liggéey bi waaye ni nga ko waxee léegi nag ñun dañ leen a nekkal foofee ci barab boobee ngeen nekkal ñu ci barab bii waaye teewut nag ñu xam ne barab bii ñu nekk nag mooy mooy capital bi mooy fi ñëpp war a nekk tey jii bu ngeen soxla woon tey ne bu sëñ bi joxe woon ndigal ne ñëpp nañ koy defee si Touba fii ci jumaay Touba ji kon noonu lañ koy defee kon nañ jàpp ne foofee ci Daarul Muti ndigal moo nu fa bàyyi ñu nekk fa ca noona ci kilifa yi ni ko diglee waaye bu ñu waxoon ne na ñëw Touba ànd koog yéen it noonu la ñuy def waaye itam alhamdulilah ndax yéen ñi fi nekk itam yéen a ngi koy matale bu baax a baax kon dañuy ñaan yàlla suñu borom mi nga xam ne dara ko ci barkeb Sëriñ Touba mu kàttanal leen dëggal leen ba liggéey bi ni ko sëñ bi tegee ci seen loxo suñu borom kàttanal leen ba ngeen mën ko àggale fi ko bëgg a yépp yëpp di rafetlu jotaay bi ak waxtaan yu baax a baax ni ko waxee rek tey jii ñu ñëw ànd ak yéen liggéey bi ñëw barkeelu si ci bu nu soxla woon itam li des ci koor gi yëpp it incha allah dañuy ñëw ànd ak yéen ndax ku ne xam na ne niñ ko waxee léegi rek nun ñëpp taalibi sëriñ bi lañ te bu sëriñ bi joxee ndigal amut kenn amut sañ-sañu di topp leneen lu loolu kon daal ñu ngi leen siyaare bu baax di lu liggéey bu baax a baax nag ndax fi gis nag wax dëgg liggéey bu rëy rëy la ndax gis nañ li fi doge ci mbooloo kenn xamu ni mu toll ñu waxtaanal la ci sa dundal la ci sa ruu ba noppi dundal la ci sa yaram kon mën nañu wax ne fii ci Touba yéen a ngi koy def baax baax kon mboolem yéen da waa dairatul muxaddamatul xidma bi nga xam ne yéen a méngoo liggéey Sëriñ Tuubaa te muy liggéey bi gën a am solo nag muy liggéey bi jëm ci xam-xam ak barab barab bi gën a tedd ci ci ci dëkk bi muy muy Tuubaa fii sëriñ bi nekk nga xam ne yéen a ngi koy ciy taxawaay taxawaay bu rafet nun murid yëpp fépp fépp fu am murid nekk wala sax mën noo mën na wax lu gën a yaatu lool fépp ab taalibe nekk jàpp nañ ne barab bii ñun ñëpp dañ a di fi di fi liggéeyal Sëriñ Tuubaa waaye yéen ñi nga xam ne yéen la fi yàlla suñu borom taw fexele ngeen nekk fiit kon ñun ñi ngi leen di sant baax di leen gërëm amel nañ leen ak cant ndax ñun ñëpp ngeen ko defal ndax bu ngeen ko taxawutoon ñun ñëpp dañ fi ñëw taxaw fi waaye yéen nga xam ne yéen la yàlla suñu borom dogal sëñ bi jox leen ci ndigal ngeen koy fi di sàmm war may sëriñ bi fii ci bi jumaa ji ak ci barabu mu nekk nii loolu moom ñun murid yëpp amel nañ leen ci cant amel leen leen ci ak ñaan kon daal dañuy ñaan yàlla suñu borom ci barke weer wu tedd wii nga xam ne ci lañ nekk tey ñu ngi ñaan yàlla suñu borom mu kàttan leen ba fépp fi nga xam ne bëgg ngeen fa àgg ci liggéeyal sëriñ bi yàlla suñu borom defal leen ko tan ànd ko yéen tey daal am nañ mbégte lool ni nga ko waxee léegi rek mu assatu Wafa daal ak Muxaddamatul Xidma mën nañoo xam ne benn benn daaira wala benn mu assisa la boo xam ne bii ni ñu ko waxee léegi rek Daaru Muti fii ab bànqaas la ci Daaru Muti nag Touba nag fii di capital bi nga xam ne fii la lépp nekk kon daal ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaan yàlla suñu borom mi nga xam ne dara taw ko mu kàttane leen dëgër leen ba fa ngeen bëgg ak yëpp ak fa ñu ngi teg nuyoo bi sa loxo di ko di la bëgg nga jàll na ko sëriñ Xaafiya mi nga xam ne seriñ sëriñ Afiye mi nga xam ne moo fi moo moo moo jiite daayira bi délégation bi nag nañ ko waxee léegi ànd na ma kilifa yu bari ànd na ma sëriñ Modou Mbacké mi doomi sëriñ Abbas la ci kuréel la bokk ma ànd na mag sëriñ Modou Ndiaye mi sëriñ Abdou Khadir Silli mi ak sëriñ Ahmadou Mbacké mi jóge woon léegi ak sëriñ Mohamed Djili ak sëriñ Saliou Mbacké ak mbokk yi ñu àndal yëpp bàyyiwuñ kenn sëriñ Modou Kara Diop neen ko xamee ñëpp bëggoon a ñëw waaye tey ay yitte dafa am yoo xam ne moo tax ñu bari gàllankooru toog